fexe ba bépp média bu ne si réew mi dëppoog yoon jubal anami yi tasaaree xibaar ba du jur benn fitna bu bàyyeekoo si ay parparloo wax ju ñaaw wala sax ger mooy yenn si li sabab lël bi Synpics amal si alxamis gi. dañu war a fexe ba liy jóge ci média bi ndax léegi sax boo dégloo waxatuñu presse bi léegi média bi nañuy wax. li ñuy wax euh, produit continu génne ko fësal ko dafay jaar ci canaux yu bëri léegi nag est-ce que dañuy bàyyi noonu rek mbir yi jaxasoo ku sa morom sa ku ëpp doole sa morom jaay ko ko ku ëpp xaalis am loo xamante même fekkee ni la keneen ki di wax moo ëpp solo mais yow même xaalis yow nañuy wane est-ce que dañuy bàyyi euh, suñu même démocratie bi ñu ñu influence dañuy bàyyi influence bi ak euh, opinion bi jël le pas sur l'information est-ce que dañuy bàyyi par exemple euh, ñi nga xamante ni dañuy orienter médias yi di leen manipuler ñu bàyyi leen ñoom ñu yor doole ji walla est-ce que loolu yëpp dañ koy teg est-ce que dañuy fexé ba journalistes yi également ak euh, caméraman ak techniciens yi euh, ñu mën di gën di dund ci liñu ñuy liggéey parce que dundu bi liggéey bi ngeen liggéey dafa metti wala est-ce que dañuy toog di xaar loolu lépp japp nañ ne bu ñu dajaloo euh, dinañ mëna fi génne lo xamanteni dina jëmal mbir mi kanam ci jéego yu gën gaaw loolu moy objectif bi. fexé ba Sénégal ñu am média yi nga xam mom lañu mérite. lël bi nak ñu ko amal ci téway ñen ñu seen xam-xam màcc jëm ci walu média lépp ngir fexé ba indi safara ci li soxé si secteur média bi. bëgg nañu daal génne document boo xam ne nii mën ci sukkandiku pour saafara li nga xam ne mboobetu presse bi ndaxte tamit day euh, secteur boo xam ne nii euh, jàmbaar lañ trop waaye tamit ci biir boo demee ba ci biir da ngay gis ni daal am na ay des fois ay fitna ak yoo xam ne daal euh, presse Sénégal war naa dépassé foofu. boo demee ci dans les pays la sous-régionale Sénégal dëkku référence la en matière la presse donc bu ñëwee ba ci biir aussi gis ni am na loo xam ne nii. andout ak une liberté de la presse am andout tamit avec un épanouissement professionnel des journalistes foog ñu tok xoolaat ko ku nek am sa part de responsabilité gis sa part de responsabilité ñu waxtaan dal pour xool nak lañu ñu nañuy saafara problème ndax té euh, profession bi ay journalistes mais aussi employeur té par rapport ak li nga xamni ni mom lañu gis té baxu ci profession bi ku nekk am ci sa part de responsabilité loolu nag pour mën a saafaru waxtaan moo koy saafara. assise yi ni mel nag daanaka guléet la si réew mi waral moom secretaire général bu Synpics jàpp ni ndaje mi ni mel patron média yi ñoo si waroon jiitu naam du kenn si ñoom ku fa teewoon. ñun amuñu xaaj ak seen dafa di Sénégal boo bëggee benn mbir avancé da ngay ñu ñu àndal yëpp yeneen association yëpp ñu ngi fi te ànd nañu ak ñun pour format bi ñi nga xamante ne nag àndaguñ ci.

ah ñoom kat warloowuñu ak yoon parce que aussi euh liñu wara fay journaliste duñ leen ko fay liñ leen wara cotiser institution sociale duñ ko def bu fekké loolu motax ñu né bon xaru ñu ñu jëm a ko baña bok bokk dinañ ñëw te dinañ bok j'espère que dinañ bok mais même bu ñu teewee question yooyu dinañ ko teg sur la table. loolu loolu bu mag nañu bëgg def mais tay dafa wara nek ben benn bu gëna ndaw bo xamanteni sotante sottante xalaat la pour mëna jëmmal. Euh, fi ñu jëm. lël wi ni mel nag daanaka ñu bëri ñu ngi ko doon xaar si li nga xam ne moo di secteur média bi bi yoon nag mu doon dorteel waral Synpics ak ñim si àndal fas yéene gën ko yaatal fileeg ay fan.